ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll mbooloo mi maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ni am nañ ko ci mbas mi ñuy wax Covid fii ci Sénégal ci bësu tey bii talaata di ñaar fukki fan ak benn ci avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale. jot na lim bii ma leen di bëgg a jox ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom dellusi nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu fanweer ak ñeent moom lañuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi benn ci ñoom jóge na ci li ñuy wax transmission communautaire. mooy maanaam ki nga xamante ne kenn xamul fan la jëlee feebar bi ki ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj juróom-ñaar ci ñooñu bi ñu leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan fi mu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na senegaal ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñuy topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate ci yooyu ñu ngi dellooti di tere li nga xamante ne mooy nuyoo ak loxo yi nañuy di raxas loxo yi ak saabu ak ndox boo xamante ne danga toog ak benn nit na ngeen fexe am xàll bu tolloog meetar ci seen diggante bu fekkente ne da sakkat wala ngay tisooli na nga yore mouchoir soo paree nga sànni ko ci mbalit bi soo yoril mouchoir nga jël sa conc ci biir conc bi nga sëkkat si wala nga tisooli si ñu ngi leen di wax tamit ne dañuy sol masque yi fépp foo xamante ne dafa am rassemblement ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam